ñu décision ak sago xam ne lu dul yàlla dafay jeex te it liggéey nañ fi loo xam ne am na lu ñu teg ci développement Sénégal su ko defee ñiy ñëw suñu ginnaaw mottali liggéey boobu ndax àdduna noonu rek la war a mën a demee te loolu yàgg nga di ma ko wax ci biir wax nga ko sax si biti kon nag jërëjëf sëriñ bi si sa taxawaay jërëjëf si sa jàppale jërëjëf ci ni nga xamante ni loolu nga wone te ñëpp xam ko ci réew mi dañ Babacar Sy ku ne xam na dëggoom ak li nga xam ne mooy li mu gëm rek lay wax te ku ku ku nekk ci siraatal mustaqima la loolu lu jiitu nga toog fii comme xalif général la moo tax ñuy am mbégte di rafetlu it liggéey bi nga liggéeyal diine ji liggéeyal ko tarixa bi mu yoonu Cheikh Ahmed Tijane Cherif radiyallahu taala anhu te jumaa ji rek nekk ci preuve ndax jumaa ji yàgg na lool te chantier bu mag a mag la te yaa ko yëkkati ba yàlla andi ko fi yal na ko yàlla mottali te daanaka jeex na kon loolu dama ci rafetlu sa liggéey kon mën nañ wax ne ndono bi de puso bi réeréwul fii ndax li nga waroon def yëpp def nga ko muy ci Tiwaawan ci modernisation Tiwaawan luñ si mënoon it jàppale nañ la si ndax Tiwaawan dëkku diine la muy ci tali yi muy ci hôpital bi muy ci lépp loo xam ne luy andi euh, taaru dëkk bi la ndax dëkku diine la li ci des nag mooy ci wàllu diine ba tey ñëwoon naa fi 2015 fekk fi suñu wayjur sëñ Abdoul Aziz Al Amin na yàlla yokk leeram moom it fa mu nekk ma ne ko woon réew mi mu ngi bëgg a dugg ci jafe-jafe ndax l'islam bi ñu koy mbubboo bëree nañu te li nga xam ne moo téye woon Sénégal dëgg-dëgg ci stabilité moo doon suñu islam bi ñu am sufiyanke yi téye ko keneen ku nekk it am nga nag sa yoon man duma dugg ci gàm waaye li fi maam yi def mu ëpp junni at bi lislaam duggee Sénégal rek ëpp na junni at kon loolu waruñ ko foye ba di ñu bëgg a jàngal yeneen pexe yu bees loolu nag pour mu mën a wéy foog këru diine yi ñu continuer bi ci jàngale lislaam continuer mu nekk ay foyer ardent ni ko mag ñu baax ñu daan defee loolu mooy tax ëllëg ñi ñëw bëgg a wëlbati xel yi danañ dajeeg ñu am xam-xam mën a armé talibé yi armé population loolu dafa am solo état am na ci wàll mooy lutter contre forme extrémisme yi te mu ngi suñu frontière amaana sax mu ngi ci biir réew mi donc loolu mooy recommandation bi may njëkk a def te Sénégal ñu continuer di ko sàmm ndax stabilité ci la lépp xej bu loolu weesoo it ñëw naa ànd ak premier ministre ànd ak euh, ministre président du conseil économique ànd ak euh, ministre de l'intérieur ak délégation bi ñu fi lim léegi ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen ñi nekk fële ak ñi ànd ak man yëpp yàlla def na nag joxoñ naa ndax koo gis ku ne bu doon sa sago sa ginnaaw donc defar mu rafet ginnaaw bi nag mooy Sénégal stabilité d'abord jàmm ji ñu saxal ko liggéey bi ñu sumb ñu mottali ko te loolu ci équipe bi laa ci am yaakaar tama leen leen di dënk ngir ñu jàppale leen du jàppale leen ngir seen bopp waaye ngir Sénégal ndax bu réew mi wàccee yoon bi mu jël fa mu jëm baaxul te am na luñ ci jot a gis jamono yi ñu génn te loolu lancement la rek kon loolu nag jar na fànq dan nañu yàlla musal si luy indil jafe-jafe réew mi ñoom it ñu góorgóorlu jàppalante nekk benn ku ne fàtti sa bopp xool réew mi xool it exemple ci man mënoon na ne kat comme nii la am naa si droit damay dem coow li ne kur xeex bi jóg waaye jaru ko jaralu ko man bokk jaralu ko kon kenn ku ne boo fàttee sa bopp xool réew mi rek ànd bi dana mën a rafet su ko defee ñëpp jàpp si Sénégal jëm kanam am nañ yaakaar si yow am nañ yaakaar si kilifa diine yi am na rôle bu ñu war a jouer sur la stabilité du Sénégal te rôle boobu ñu leen koy ñaan si mosu leen si jóg d'ailleurs kon sëñ bi man xam naa ne wax ji du bëri ndax Euh, dañu ñëw ndokkal si si si gàmmu gi euh, di la wax rek ni lépp lu ñu mënoon de wala lu ñu amoon yéene ci Tiwaawan def nañ ko ci fukki at ak ñaar yi lu ci amul it xëy na yàllaa ko tudduloon waaye suñ kem kàttan def nañ ko ngir jàppale Tiwaawan jàppale këru diine yëpp jàppale réew mi li ci des itam nag àdduna moom bés bu ne ak luñ ci luñ ci tabax bu fi ñii ñëw bu ñu ñëwee dinañ continuer liggéey bi ndax dëkk yi àla leen faaw ñu jàppale leen si si seen taxawaay ndax dëkk yu màgg la dëkk la yu am population yuy yuy màgg lool kon maa ngi lay santaat bu baax a baax te da gërëm di sant sëñ Maodo ak ay rakkam euh, ñoom ñëpp njaboot gi di sant euh, sëñ Mansour euh, ala bu sëñ Abdou Aziz Euh, Dabaax baax sant suñu xarit suñu Cheikh l'ambassadeur ak euh, suñu Mansour si Jamil ak mboolem suñu Habib mboolem njaboot gi yëpp ku ma si tudd ku si tuddul ñoom ñëpp la ñuy sant di leen ndokkale suñu Cheikh bu suñu Mansour euh, ci bés bu tedd bi donc man daal maa ngi sant yàlla bu baax sëñ bi te mm, xam naa ne loolu may sant yàlla lu bare def nga ko ci ci say conseil si biir si say recommandation ci biir loo xam ne du ci biti lañ koy wax te lépp rek ngir ma mën a euh, liggéey ak jàmm jóge fi ak jàmm te loolu kon jar na sant yàlla allahumma salli ala sayyidina muhammadin nañ ko kii di président Macky Sall mu ngi doon dem seeti ki nga xamante ne mooy Serigne Babacar Sy Mansour waxtaan na fa nag Adjaratou Rahma boy ay kàddu yu am solo waaw. kàddu kàddu yu am solo kàddu ziar la ak it kàddu euh, mën nañu wax tàggatoo tàggatoo waaye tamit kàddu ndénkaane. Mhm. macha allah moom euh, kàddu mi am na solo ma ndax nag euh, ñaan kilifa gi. ngeen ñu ñaan euh, stabilité am ci réew mi ñaan ak euh, dal waaye tamit euh, jénk na leen équipe bi nga xamante ne mm, ñoom ñooy war a woyal liggéey bi ci ñi nga xamante ñoom la seqal liggéey bi ñoom njiitu gouvernement beeg li nu mel ñaan na kilifa gi kenn ngeen mu ñaanal leen ndax semb yi nga xamante ni rek semb naka fa ñu mën a ko wéy dañuy dañuy delluwaat fële ca Tiwaawan ñi nga xamante ne ñi ngi fay amal waxtaan bu am solo kër fii ci ndax yelloo nga waaw <laughs> bu oh. bees bi mu jox ko jërëjëf Pape Samba Tiwaawan nag am nañu tey cadeau bu mag bu ñu ah. joxe chef de l'État may ko terrain foofu ci dëkk bu sell bi am na solo